mooy ñiy jëf lu rafet mais boo déclaré ni gëm naa nii te jëfoo kenn du ko gëm buñ nax nit ñi ay discours discours musta régler benn problème man xaaruma ci Macky Sall benn ay discours man li may xaar ci moom. Hmm. mooy mille détenus yi nekk ci kaso bi Macky Sall nii kii naa leen nuñ koy waxee. ni mu koy defee gracier naa leen. parce que dañoo am droit de vote te droit de vote droit fondamental la ci citoyen bu nekk. nañ leen bàyyi ñu dem wote ji parce que dañuy dem ay élection te ay citoyen lañ lii damaa jàpp ni dafay bokk ci acte yu fort yi Macky Sall mën a teg pour sénégalais yi xaw a fàtte li fi jaar mm-hmm. jéem ko fàtte fàttelu parce que mënuñu koo fàtte man passement dama xam ñoo xam ne ñoo doon nekk guddeeg bëccëg hmm. ah di naanandoo attaaya di naanandoo kafe ma xam leen ni billaahi kenn gënu leen a bëgg réew mi ku mel ni Cheikh Omar Diagne. mënumaa hmm. nangu koo gën a bëgg senegal tey mu ngi ci kaso bi pendant presque dix mois Abdou Karim Gueye xurum xaa mënumaa nangu ci génération koo gën a bëgg Sénégal tey mu ngi ci kaso bi waxuma nag ay Ousmane Sonko ak ñooñu mais ñii ma lay wax nii sénégalais yëpp nangu nañ ni ñii ay sénégalais yu bëgg réew mi kon tey bokk na ci li ñuy xaar ci président Macky Sall. mooy mu libérer réew mi. libérer réew mi waaw réew mi dañ ko jàpp otage. libérer la peuple mooy ñu fexe ba Sénégal loo mën a wax ab république la ñu am ay ay yoo xam ne nii xoola yu dëgër këcc la kenn mënu koo déjërti te loolu moom rek mooy moom Sénégal day bàkkee boppam ni état démocratie la day da day bàkkee boppam ni république la république mooy un peuple un but une foi il faut ñu dellusiwaat ci solo gaay yi nga xam ne moom lañ sampee suñu réew. Hmm. un peuple un but une foi mooy peuple boo xam ne unique la ñuy dem dañuy yëkkatee yëkkateendoo di dóorandoo di tegandoo. tey bu ñu waxantee dëgg réew mi dafa xaaj ñaar. Hmm. loolooy dëgg ñii majorité ci réew mi billaahi wallaahi tallaahi damaa gëm ne d'accorduñ ci lii majorité bi. d'accorduñ ci lii ñoom ñoo féete côté bële. mu fekk ni ñenn ñi dañuy ñimee wax ñenn ñi ragal a wax mais tey li ëpp ci Sénégal yi d'accorduñ ci ni ñu yoree seen réew. oui ci Sénégal yi. waaw c'est relatif quoi. non non loolu am nattukaay. Pa am ah. naa nattukaay. Ah. waa parce que man xam naa sama peuple. xam nga Sénégal judduwul deux mille vingt quatre senegal réew mu màgg la. Hmm. Sénégal boo seetloo sunu histoire xam nga réew dañuy wax ni man pro Alain Focar moo koy wax. Alain Focal nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme réew day am taarix Sénégal taarixam mooy mbaax Sénégal mbaax lislaam indiwu ko fi fi la ko fekk Sénégal jom ak ngor l'islam indiwu ko fi la ko fekk sun maam yi fii gore da ngay dégg toujours ñu koy wax gore sun maam yi bi ñu demee ba tubaab bi bëgg leen a jàpp jàmm bëgg leen a yóbbu am na ñoom dañuy préférer daanu ci géej gi looloo indi gore ngoro ngi fii ndakaaru Sénégal réew mu màgg la peuple bu mag bu mag lañ ci démb ñu amoon mag ñoo xam ne dañoo bañ ba faatu lajjoor koroog bi muy génn di dajeeg tubaab bi mag ñi nettali nañ dafa dajeeg sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ko kaay ma jox la lu gën nguur te nga bàyyi xeex bi mu ne ko sama kàddu joxe naa ko ba noppi maanaam dellu weesu na. Hmm. yaa ngi dégg Sénégal dafa am démb Sénégal du réew ma xam ñun ñi ñëpp sun maam yi bi tubaab yi ñëwee bëggoon a ñëw eh, jàpp jaam comme lii ñu ñu bëgg a def nii dañoo taxaw yaa ngi dégg Maba Jaxu Ba koroog bi mu wootee jihaatam ji ah mag ñëpp a daw ko jàppale ko ci jihaat ji ngi dégg Cheikh Omar Fouti yu koroog ñu jógee bëgg a not Fouta Cheikh Omar doon taxoon mu doon xeex Cheikh Omar da doon xeex pour sauver culture ak peuple am Serigne Touba bind ko ni man dama doon xeex su pour sama peuple Seydil Hadji Malick liberté lim ci bind kenn xamul nu mu toll. yaa ngi dégg kon ñun réew mi ku yaakaar réew mi ci Macky Sall la tàmbale mooy xamoo Sénégal ku yaakaar mi ci Senghor la commencé mooy ñoom bi ñuy ñëw ci réew mi dañ fay fekk notion li gën a jafe léeg nga dégg ñu naan Senghor moo tabax notion bi loolu mooy fen wi gën a rëy ci histoire. Hmm. loolu ay fen la dañu koy wax nañ ñu respecté Sénégal commencé wul ci Senghor. au contraire Senghor bi muy ñëw ci réew mi fekk na lépp sotti Sénégal même tubaab yi bi ñu fiy ñëw la théocratie de Fouta am na fi. ay révolution yu mag am fi. te boobu tubaab yi ci boppam tax dugguñ ci réew mi. l'université Pire gi ñu ngi ko fondé ci 1603. ñu ñuy wax waxi Senghor Senghor bi muy ñëw ci réew mi fekk na lépp sotti fekk na juste ñu am indépendance tubaab yi importel ñu ko indil ñu ko mu ñëw imposer ñu culture Occident loolu sax moo ñu indil jafe yi. yaa ngi dégg. Hmm. il faut ñu xam ni ñun tooguñu nii rek di coowandoo. dañu xam ni réew mi dafa ci mbaax googu nga wax ni dafa yaaj ci Sénégal ci loolu nga sukkandiku. te loolu sukkandikuwul ci diine. Ah. loolu sunu ma ceddo yi ngay gis nii. Ah. bu ñu la musaana wax ni dañuy faatu dañuy faatu. ceddo du wor. Hmm. dama la bëgg wax ni mbaax ñun dañoo judd ci mbaax. parce que mbaax li am solo valeur dafa am lu ñu tuddee ay valeur universelle. Hmm. loolu ñëpp ko bokk. moo tax yonent saay la bi muy wax naan xiyaarukum fil jaahiliya hmm. xiyaarukum fil islaam ñi baaxoon ci jamonoy jaahiliya ñooñu buñ duggee ci lislaamit ñoom ñooy ñi baax rek hmm. mbaax moom amul katolik amul musulman nit mën na nekk athée ba noppi baax parce que dafa am valeur yoo xam ne ñëpp ko bokk kon yooyu dafa baax ñu fàttali ko. loolu moo tax nga ni mooy sa nattukaay. man sama nattukaay mooy réew damaa gëm ne lii ñi fi nekk ñaar ñoo fi nekk ñi fi ëpp majorité bi ñu baax lañ. loolu laa gëm. Oh. parce que dañ leen a nampatal ci mbaax nampatal leen ci kersa dafa fekk ni nag nit nit ñu tolloowuñ degré d'engagement. Hmm. am na koo xam ni xëy na intérêt am gënal na ko ba du jël yenn engagement yi. Hmm. am na koo xam ni ragal na kaso. am na ko ragal na ko ko saaga xam nga yii moom ku ko ragal. mu mënoo waxal peuple yaa ngi dëkk te hmm. te buñ naxante ah Pa hmm. hmm. gis nga sunu maam yi sunu mag ñi ngay gis nii position yi bi ñu koy jël nit ñi dañ leen doon attaqué di leen saaga. ah billahi loolu mooy dëgg Seydi Hadji Malick boo jàngee histoire dañ lay wax ni la koroog bi mu ne njëpp bi mu bi mu ne cëpp Tiwaawan. iit julli iit gi mu fa njëkk julli. dafa am benn góor goo xam dañ ko neexal xaalis mu génn yor tamaam di tëgg di wax ni am na góor gu ñuy wax Malick fawaat di ñëw na ci dëkk bi ku mu jiitu julli amoo julli hmm. Seydi Xaaji Malick bi mu déggee wax jooju dafa dafa jël hàddiye yi nga xam ne doon nit ñi jox nañ ko ko ci journée bi mu dem seeti góor gi yëkkati hàddiye yi jox ko ko bi mu ñëwee di ko jox góor gi góor gi ni ko boo ma la teeloon a gis yow doo ma gis Maodo mu ne ko ah Seydi Hadji ni ko man damaa dégg ngay wax ni man ku ma jiitu julli aw ma julli te yow mi xam julli gu nangu ak gu nanguwul ma ni xaaral ma ñëw jox la hadiya ndax nga ñaanal ma góor gi ni ko wallaahi ñi ma yàlla rek a ma jàpp mais man xaw ma ku julli gu nangu ak gu nanguwul loolu ay attaque la woon. Mm. <laughs> yaa ngi dégg. waay Sey Seydi jox ko hadiya góor googu dafa mujj jaayanteeg El Hadji Malick nekk taalibe kon ku yaakaar ni mission bi dafa mos yomb xamoo démb gis nga am na ñoo xam ni. seen yaay yi dañ leen a dañ leen a jur pour ñuy saaga il faut ñu xàmme loolu am na koo xam ni yaayam bi mu koy jur da jur indi ko ci àdduna mu saaga gorñe loolu moo koy dundal ci deretam la nekk. Hmm. waaw moo tax ay saaga wër nit wax bañ a wax xalaatam am na koo xam ni yaayam da koy jur pour muy toroxal gorñe mais am na koo xam ni yaayam daf koo jur pour mu bokk ci ñiy yëkkati dëgg ak ngor. il faut ñu xàmme loolu moo tax yonent la mu wax ci xadis ni kullu mawludin yuuladu ala al fitra gis nga fa abawaahu yu hawwidaani aw yu nassiraani aw yu majjisaani mu ni ku judd rek da ngay indaale ay valeur ak tawxiid hmm. fitra waaye nag say waajur ñoo lay orienté yaa ngi dégg mais ki ay waajuram orienté ci ay valeur noo def ay valeur rek la mën a defendre moo tax kon bu ñu kenn jàpp ni li am ni lu bees la. am na débat yoo xam ne ku ko mës a ci pénc ñu dal sa kaw ñu chargé la waa mais dañoo jàppoon ni nag loolu bi colonisation jeexee esclavage jeex ñu am indépendance ñu dawal pendant ay ay pendant presque demi siècle jàppoon nañu Sénégal loolu waratu fee am. oui mais bu bu fekkee da ngay convoquer Gandhi. Hmm. ni dañu nekk ci réew moo xamante ne il faut. xam nga ñu ñu ñu dimbali ko. ci mm-hmm. ci fi mu nekk nii. Mm-hmm. mais soo koy wax ni xanaa dag ñu bëgg a wax en de fond que nii ñi ŋànk réew mi. Mm-hmm. xëy na ñoom ñoo nekkul ci bëgg a réew mi nga ni ñoom ñoo teg fitna réew mi. ñoom ñoo bëggul jàmm réew mi ñoo bëggul développement wu réew mi te ñoom ñoo ŋànk réew mi ku mel ni président Macky nga xam ko ak ñi mu àndal. soo koy présenté noonu da nga bëgg a wax ni kon ñooñu ñooy noonu réew mi kon. man lii may wax ni du samay wax. man lépp lu ma wax rek dama interroger waxu waxu borom xam-xam boo xam ni ñëpp dañ koy nangul ni borom xam-xam la. Hmm. gis nga Pa Ousmane la ci kenn nax réew. ñaari pouvoir yi ñooy tabax réew. ñoom ñoo koy defar ñoo koy yàq mooy le pouvoir temporel mooy pouvoir Macky Sall bii mu yor ak gouvernement. yooyu le pouvoir temporel. beneen pouvoir bi mooy le pouvoir spirituel. Hmm. waaw parce que boo gisee état mu am légitimité parce que état dañ ko jox force yëpp pour mu mën a régulariser pour mu mën a teg ordre ci pénc mi waaye teg ko nag ci ci justice loolu prévoir et suñu république yi prévoir nañ ko kon li ma bëgg a mooy. Hmm. temporel spirituel ñooy defar réew. réew mi bu pouvoir bi temporel bi joué rôle am le pouvoir spirituel mooy sëriñ si ah hmm. ak église bi ñu joué seen rôle réew moomu mënul dem ci jafe-jafe loolu amul loolu moo amul yow réew mi gëm nga ni ba alaajab du doon dund réew mi dina agsi fi barke Cheikhu Tidiane billahi wallahi tallahi bu Cheikh Hadj Abdou doon dund Sénégal du traversé lii hmm. man loolu laa gëm Fa Ousmane yow tamit. na muy def mooy na mu def. day wax ki ku nekk li ku ne lii sa responsabilité amoon na courage wax la ko. bu jaree mu jug dem fekk ji la pale fekk la. mais loolu la daan def loolu ñun créé wuñ ko moo fi amoon Senghor lan moo ko rëccaloon dañoo jàppoon ni Senghor Senghor li taxoon mënul woon a def lenn dafay daje woon ak ay kilifa diine yu am courage ñoo xam dañ ko daan marqué à la pilote bàyyi Thierno Seydou Nourou Tall mi ngay dégg. Senghor mos naa jàpp benn taalibeem benn taalibe sëriñ daara buy jàngale bàyyi Thierno seen Nourou dafa dugg ci biir pale bi fekk Senghor ci duusam mu fëgg ko ni ko Senghor génneel kooku waaye mu ñibbi këram kooku day jàngale alxuraan warut nekk ci kaso <laughs> il faut yu xam ñun ñun nekkuñu nii di wax nii de pour wax jeencu bu ñun mag ñi dañoo jàng seen dund xam li ñu doon pratiquer l'islam crise yi mus am fii yëpp mag ñi dañ cee mus a taxaw mosuñoo daw seen benn responsabilité ngi kon Sénégal problème boobu la am tey problème mu es crise spirituelle lañ am loolu ñëpp xam nañ ko. oui mais imaam soo koy wax nii ne wéy jëlu seen courage dafa mel ni comme si da ngeen peeg di topp ba xam ban rôle ci crise yi nga xam. jot nañ dund ak fi ñu toll nii seen rapport ak njiit réew mi nekk. ba nga jàpp ne xëy na la waroon def néew na est-ce nga ko. est xam nga lan la ñu def dëggantaan ci biir. xam nga Pa Ousmane man moom man man sujet boobu wax ci day yomb ci man. Hmm. man dama judd ci sëriñ yaa ngi dégg. bu dee judd ci sëriñ mooy ko sa baay di sëriñ sëriñ nga man sama juróom-ñaari wàllu yu yëpp sama juróom-ñaari maam yëpp ay wàll yu la man awma maamu ceddo te defi kii konk nag <laughs> kon man affaire sëriñ ku ci sérieux di ma ci déglu xanaa ngay wax waxi dof wala nga bañ a xam senegal yaa ngi dégg man dama ci judd xam lan mooy ban rôle la sëriñ ci joué ci réew mi ba réew mi stabilité am fi ba nation am fi ba état yi fi nekkoon amuñu woon fitu def li ñuy def kon man du ma benn waaye buy wax nii rek di sànni yaa ngi dégg gis nga réew mi li taxoon mënul woon a àgg fenn fi sëriñ si dañoo mus a taxaw ci wetu poir bu naree def naka sudul noonu mu jaral leen seen bakkan yow tey Sénégal exemple bu gàtt ma lay jox bu ñu demee ba décision justice tey ci réew nga xam ne ni dañu wax ni am na ñetti pouvoir pouvoir judiciaire pouvoiru boppam la ci république le pouvoir euh, législatif mooy assemblée nationale et le pouvoir exécutif ñetti pouvoir yi ñoo ŋànk république bi tey pouvoir judiciaire jël décision ab juge jël ko ay admi ñoo xam ne dañoo nekk ci biir administration ñu lànk ni duñ ko appliquer mais loolu loolu bu ñu demee ba àgg fa mooy xool àgg nañu au sommet. Hmm. ci yàqu loolu laa gëm mais réew bu fekkee ne amul justice lan la fa nit di def hmm. Serigne Cheikh Tidiane si nee na réew mu amul justice lan la fa nit di dundee. kon ki dañuy nangu ni problème am na gis nga réew gis nga nit bu feebaree dem ci docteur taxaw ni ko moom taxaw ni moom feebarul kenn du ko faj dañuy nangu ni Sénégal dafa am problème Sénégal système bi dafa caduc mënul continuer loolu ñun ñëpp dañ koy nangu ñu jéem a nag ànd dem wuti solution. Hmm. man loolu man ci niveau boobu laa nekk mais man dama gëm ni lii nii bu continuer hmm. lii bu continuer amul benn sénégalais bu ci am intérêt parce que mënul continuer parce que xolu nit ñi moo ci àndatul parce que boo déggee ñuy wax nit da nga war a am légitimité légitimité mooy mooy mbooloo mi d'accord ci li ngay def mais mbooloo mi bu ñu demee ba taxaw yow mënatoo ñoo jiite d'accord tuñu nga jiite nga bëgg forcer continuer di ñu jiite dootoo am légitimité te ñii fi nekk tey sénégalais yi ñoo d'accordutul ñu jiite leen li ëpp ci sénégalais yi ñoom ñoo d'accordutul ñu jiite leen. déet loolu yeggaguñ ji